seydina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ñi ngi fii ci Tuubaa tey ci wetu cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifa al aam li tariqa al muridiya xafizahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara di leen nuyu nuyoob lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ni ngeen ko xamee rek baaxoo ko mooy buñ egsee ci weer wii di weeru Cheikhul Xadim muy safar xel yëpp dem ci benn bis xel yëpp dem ci fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ne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 wa ila jamii al muslimina amatan eh, muy kàddu yoo xam ne rek kàddu yi soññee kàddu yi cant kàddu yi fàttali loolu mooy kàddu yi ñu ñaanal ko mu fekke ko ay déwéni déwéni déwéni déwén nu di ko fekk ay déwén déwén ànd ak moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 fas yéene di taalibe nag fas yéene nag di taalibe nag rek. ci suñ lépp ci suñ lépp. di yéeneent lu baax. di yéeneent lu baax. ndax yéene yéene moo jiitu. ndax yéene moo jiitu. nu yéene lu baax. nu yéene lu baax. rawatina ko yéeneente. rawatina nag ñu di ko yéeneente ci suñu diggante. di bëgg lu baax. bëgg lu baax. yàlla rek tax te yàlla rek tax.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 ladaa daari salaam wa inde tuubaaya bi jismin wa qilaam kon loolu wane woon na ne fii la koy defee nawaytu shukruka fii zal yawmi yaa samadi yaa samadi yallaahu sal ayni qabla raai wa chiini am na fu mu wax ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaratil minan yooyu yëpp itam day firndeel rek ne sëriñ bi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 te doxee ko noonu mu ko bëgg woon wa ma zalika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yasmini llahu inda jawali iblisa id naadaytuhu bi ya wali